mbokk internet Yatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar la ca gën a bokk na ca nag avocat Ousmane Sonko bii di Juan Branco moom nag ginnaaw ak ñëwam ci biir réew mi di Sénégal bi nu tegaloon ki nga xamante ne bi nag moo di Ousmane Sonko moom mi di nag bi mu yegsee fii ci biir réew mi ci lu kenn yëgul moom mi nag ginnaaw bi nga xamante ne bi wax na ne dañ doon da doon dellu nag foofee ca réewum Paris waaye bëggoon ko jaarale fii ci ndox mi ci yoonu Mauritanie wi noonu nag lan ko daal di teg tege loxo lan wax niki démb ci guddi moom mii di Juan Branco kon noonees naa jàpp ne mi ngi ci loxoy yoon ginnaaw bi nga xamante ne bii nag ay fan mi ngi ko def fii ci biir réew mi waaye rek doon wax Macky Sall ne ko kat ki nga xamante ne bii mandat d'arrêt international nga ko defoon tey ji nag ñoo na ba ci sa biir réew mu fekk si la fa loolee tax na Juan Branco bi mu dëppee nag fas yéene ñibbi jaar la ko ci yoon ndox yi. lan dal naa lan ko daal ne ko tegg nak loxo dal koy jébbal nag li nga xamante ne bii moo di yoon kon Juan Branco mën na noo jàppale moom avocat Ousmane Sonko bi fekkee na Ousmane Sonko ma nga xamante ne bii nag moom la doon layool niki jamono jooju yëpp ci procès yi nga xamante ne bii ñu ngi ko doon dugg.